n'était pas le cas aussi bien pour l'imam de Dakar que pour le grand serigne de Dakar il est bon mm-hmm. que ñu leeral ne kàddu yooyu ñu wax mm-hmm. seen bëgg-bëggu bi nekk seen xool lu ñu génn mm. bëgg ko boole askan bi yépp mais askan bi waxu ko askan bi lu ñu wax mm. mooy jubboo ànd mm-hmm. nekk benn askan bi lu ñu wax mooy suñu identité mooy suñu patrimoine te patrimoine lépp lébu patrimoine yu ndakaaru lébu gi rek moomuñu ko Sénégal yëpp ñoo ko bokk Afrique yëpp ñoo ko bokk mhm. parce que patrimoine yi humanité bi la mhm. Mhm. loolu nag ñun moo suñu tiitar mooy suñu taar comité scientifique bi dina dajewaat pour waxtaan jël kàddu askan bi jóg dox su fekkee ne kilifa yi ñu nañu war mel taxawuñu taxawaay ba ñu war mel ñun dañ leen di joxar bi ne leen lii moo taxoon ñu fal leen noonu ñu bëgg ngeen mel soo leen ko melul nag ñun communauté bi dinañ jël suñu bateau de pèlerin dox pour tegaat patrimoine bi fu mu war nekk ñu dox pour jubale au passage baa ngi saluer le grand sëriñ Pape Ibrahima Diagne parce que quand il a la parole moom dafa naan Abdou Khader faraloo ma il a raison mais bi mu jëlee wax ba kàddu ba dama kontaan parce qu'il a dit que ndakaaru ñun ñoo ko bokk ndakaaru lébu gi ñu ngi fi ñëw il cinq siècles mm-hmm. mais bi lébu yi di ñëw ndakaaru dañ fi fekk soose yi mm-hmm. les mandeng ñoo occupé woon Dakar mm-hmm. avant mandeng yi huit communautés différentes occupé nañu Dakar dakaar nekk capital de l'Afrique occidentale française guinéens yi ñëw maliens yi ñëw ñëpp jëw parce que seen capital la les libano-syriens qui sont à dakaar ñu ngi dugg seen deuxième centenaire les maliens yi dégg nekk Dakar ñu ngi dugg seen deuxième centenaire guinéens ñu ngi dugg seen deuxième centenaire kon Dakar Plateau c'est une communauté arc-en-ciel et c'est ça qui fait la beauté de Dakar Plateau tànn maire Dakar Plateau doomi Dakar Plateau bu ne ngay lébu ngay guinéen ngay malien am nga sañ-sañ jug ne candidat laa soo yaakaaree ne mën nga ko nekk askan bi nag mooy xool si ñu nekk candidat kan la ñuy fal mhm. kon ñu ngi yedd suñuy kilifa très wax leen ne xaaruñu woon loolu ci ñoom mhm. ñun li ñu bëgg mooy seen taar li ñu bëgg mooy seen leer parce que loolu la ñuy tiitaroo kon mbokk su dee dañu juum hmm. nañ nangu ne juum nañu dellu gannaaw rectifier le tir topp askan bi ci seen bëgg-bëgg très askan bi am mbégte kontaan xam ne ñoom la ñu àndandoo nag defar Ndakaaru mhm. defar Sénégal mhm. defar Afrique defar humanité bi parce que nous sommes tous des êtres humains et nous devons occuper notre place très bien en tout cas dans mi ngi noon hmm. leer na nañ bu dee itam dafa amoon ay lëndëm lëndëm kilifa yi bu dee dañoo juum te euh, ñi ñu boot. Euh, waxuñu lool wala ànduñ ci loolu kilifa nag naam day am bëgg-bëggam ca njabootam am ci yaakaar mhm. waaye loolu da nga koy waxtaanee waxtaanu biir néeg ba noppi mhm. boo leen ca àndee nga door ko tasaare mhm. euh, ci askan wi ndax bu dul loolu rek euh, dafay ndur ak politique politicienne te ràññew ñu leen ci li ni mel bu ñu ci dem ndax dul dara rek ku nekk sa sac nga am te li nga yàlla ba heure bii waroon nangu jamono yàqal la ko du dëgg merci beaucoup d'avoir été parmi nous waaw xam naa xaw nga yàkkamti mais li may wax daf ma ñor nga baal ma fu mu toll nii yoof ñu ngi célébrer tuuru maam njare Binte Ndiir la grande prêtresse moom moo koy jiite. cérémonie boobu lu am solo la ci Ndakaaru ñu ngi leen di remercier ci taxawu bu ñuy taxawu communauté bi ci gérer patrimoine am donc jërëjëf Binta Ndiir ak ñi mu nekkal yoof di célébrer tuuru Maam Ndiaye ubbi nañ ko barki démb huit jours lay durer. très bien en tout cas merci d'avoir été parmi nous on accueille la deuxième team professeur qui reste en notre compagnie on rentre dans un fait de société. Euh, da nga bëgg a dem jàngale jàngale ñu tey. tey moom yaa ñuy jàngale tey moom Aïcha ak kii di Rokhaya Dia madame Cissé ñoo ngi dikk bu ko defee ñu gën a yatal mm-hmm. Bonjour tout le monde, euh, je m'appelle Momo Sarr, euh, je suis data scientist et apprenant la Sonatel Academy. L'idée nous est venue euh, après avoir euh, rencontré certains problèmes. Euh, c'est quoi Ici de la Sonatel Academy, quand on vient en retard, on récupère ta machine. Et un jour, nous tous, hein, on était venus en retard. C'était un lundi, je pense. Et bien sûr, on a récupéré nos machines. on était sur la hall en train de discuter. Et la cause qui nous a poussé à être en retard, c'est les embouteillages. Moi, je quitte Guédioua tous les matins pour venir ici. Euh, J'avais fait de tout mon possible pour arriver à l'heure. Mais malheureusement, avec 5 minutes de retard, on a récupéré ma machine et même les autres également. Nous sommes dit, mais ça, c'est un problème que les gens vivent. Ce n'est pas uniquement nous. Nous sommes venus en retard aujourd'hui. Mais également, il y a d'autres personnes qui arrivent en retard à cause de ces embouteillages.